yëpp yëpp étudiants du Sénégal de sortir et de défendre ce pays de défendre l'avenir de ce pays de défendre notre président Ousmane Sonko que tous les étudiants du Sénégal sortent s'il en faut on va paralyser tout le système éducatif sénégalais il faut que cela cesse cette il faut que ça cesse dans ce pays nous voulons la démocratie nous voulons de la liberté dans ce pays et c'est inadmissible que des gens mal intentionnés s'attaquent à notre Et ça, nous, étudiants du Sénégal, de défendre ce pays, de défendre l'avenir de notre Thank you. Yun! Yun! Yun!

Vale, vale, vale. Sénégalais la parce que bu jotee ñu dee rek ñu dee mu jeex c'est tout ce qui reste à faire y a rien d'autre su deextee dee on meurt c'est tout ceux qui sont prêts à assister cette scène nan nga jàngatee li fi xew tey non non non non c'est odieux franchement ça va ça va grave ne leen jàpp leen ma ma dem en même temps, c'est parti. majoritairement amul buñ ko tey Ousmane Sonko ay conviction ay valeur yi muy défendre ñun majoritairement ñu ñëpp a ci ànd tey boo toogee su 10 moom yéen ñëpp yéen a bokk leen exceptionnellement benn la ñu mais tey si sadi la lakk par benn am looloo ñu c'est parce que l'égoïsme est africain on est dans un pays de lâche tey yaa am na célébrité yoo xam ne amaana bu taxaw ci am na benn mbaboo bu ci kan à part ñoom yaanaa maara ñu nekk ci na ko waaw ñoom seen isaan en fait en fait kii na responsable tout ce qui se booy bi lu mu demee booy bi dafa doon dafa doon génn taxaw ne doon fi ñëw ci be jëlee benn waay fël benn jeune si moom moo dóor lacrymogène bi si bopp booy bi moo ko dóor exactement si si boppam. jeune bi ñoom ñii la police oui c'est eux qui ont fait ça gàcce la quoi Sénégal gàcce la jëmm tax ñuy xeex li ñu tax a xeexee le peuple sénégal la jeunesse sénégalaise je vous donne un message très fort très fort encore s'il vous en masse notre population est en jeu de ces je ne pas comment dire ces de personnes là non seulement non seulement jëmmi pas des personnes am na dignité di ngay nit di ngay doomu aadama lii nit ñu ko mën jàmbur ba bañ nañ pare-brise bi daay police yi yéen ay sànni xeer ak ñoom ndax aywaay na lay yàq na lay yàq aywaay na lay yàq na lay ñëw bi fas am bi fas am Go, go, go, go, go!

bu ajal si kaw ajal si kaw am na lii li doy na waar li ñu yàq nii Amen, yo je. Bakari moo ne sax na sax. Bakary moo leen sa am monsieur yooyu ngay reetaan dañoo mel ni ku am ndam waaye wax dëgg yëpp a jóg tey Sénégal tey Covid fàtte nañ Covid fàtte nañ Covid mais yow foo jëm ay yaay booy dellu kër ga on n'a pas encore besoin de faire repas. On récupère. Voilà, lii kese la. Récupérez ce

난는 Come on.

ànd tàccu bi itam nga ñëw ne da koy jiiñ affaire viol affaire ñàkk fayda yooyu noonu man li ma gën a metti ci mbir mi lan a metti ci li ma gën a metti ci mbir mi mooy tey affaire viol buñ ko jiiñoon Idrissa Seck wala ay Youssou Ndour wala kenn mais du déranger kenn parce que xam nañ ñoon c'est des saltiques du déranger kenn mais tey buñ ñëwee ba Ousmane Sonko jiiñ ñu ko alal buñ sàcc jiiñ ñu ko dara lu dul ay affaire de mœurs ay affaire de viol ñu war a xam ne ñun ñun affaire bi waa ji mu wa nagate ki ñu doon seet kii la parce que mënatuñ ko jaar fenn fu dul affaire de valeur tey jii nii jiñ nañ ko Youssou Ndour barki démb affaire affaire mërsa mais kenn faale ko parce que xaman il est il est accoutumé parce que xam nañ ni waajooñ noonu du waajoo am valeur mais kii dafa am valeur tey jii moo tax ñu bëgg ko jaaral ci affaire bi. dernière laaj dernière bi vous êtes des jeunes avenir a ngi kanam mais dëkkandoo yi tamit nee nañ euh, wàllu gàllankoor yi am yi ci am. ci bi man sa man maa tudd Hamidou Sow nekk coordonnateur mouvement Nittu Dëgg mais dëkkandoo yi nañ jàpp ni ci Sénégal lañ bokk Sénégal dafa am lu fi am mooy ku nekk da ngay toog sa côté ne su ma amul problème du ma jóg looloo dal ñu bëri Sénégal dañu war a toll foo xam ne bu nappkat bi amee problème baykat bi dafa war a bàyyi bayam ñëw soutenir ko bu baykat bi amee problème moom tamit noonu la war a demee donc nañu bàyyi ku nekk naan toog damay toog sa kër maa ngi sama jàpp. mais i du question yàq seen oto mais policiers yi amuñu formation. dama ne policiers yi amuñu formation. di nga wax dañ fi ñëw taxaw depuis 7 heures du matin kenn sàddiwul kenn deful dara kenn débordé wul dañ ñëw taxaw ne dañu. prêter dafa dafa calme nit ñi dañoo ñëw buntu kër Sonko ko non rassemblement ñi ko njëkk bafoué mooy Diouf Sarr mi woote woon inauguration poowu Yoff Macky Sall moo fi def anniversaire am ci biir ci biir Covid bi. Mhm. donc ñoom ñoo njëkk a bafoué seen i règlement. Mhm. donc ils n'ont de leçon à donner ces gens-là. Mhm. ñii ay c'est des ok ñu bàyyi la sa waa moom yow loo ci fàttali ñu tur bi lu mu si doon dolli. man maa ngi tudd waaw dëkk Ziguinchor. comme ma ko waxee Ziguinchor ba Dakar. Ziguinchor na ba Dakar mais fii nekk. Mhm. waaw parce que fii laa sama doole man je pense que lii dafa a jeex. Mhm. nous sommes dans un pays de démocratie. Mhm. comprends nga comme quoi yoon ñu ko def. comprends nga dëkk bi trop c'est trop mënu continuer. ñun la ñu parce que Sonko c'est ñu moom la ñu gëm. Sonko naa ñoo changé dëkk kon ngeen nar a jëm xeebu fu ñu dem ñu tudd xeex bi man maa ngi tudd tudd taalam Tayman Dieng maa ngi tudd taalam Tayman Dieng maa ngi tudd taalam Tayman Dieng dëkk si Cap Skirring man Barthélémy Dias mooy sama meer xam nga li ma la mhm, Sonko defu fi dara loo xamante ni war nañ ko ko mën a jàppee ay viol Sonko sera le quatrième président du Sénégal ñun Sonko lañu ñu àndal Sonko mooy toog Macky Sall déglu leen ñun jeunesse bi ñun ñoo fal Macky Sall par suñu ah. carte ak xeer. Macky Sall ñun ñoo koy wootee Macky Sall pare nañ pour lépp ñun man si kaw garab laa dëkk bu ñu ci neexee nañ ñëw fokk voilà ñun Macky Sall la ñu àndal Macky Sall la ñu àndal Mamadou euh, maa ngi tudd Mamadou Ba Mamadou Ba li fi xew tey on est avec Sonko ñun Sonko lañ gëm moom mooy quatrième parce que daf nañ ko daf nañ daf nañ ko Karim Wade daf nañ ko kii nii Khalifa Sall ñu bëgg a jël euh, Sonko def ko parce que xam nañu il est le seul bu fi des pour lan ah moom la ñu àndal deful dara il n'a rien foutu grand mënoo yor ay milliards ay millions pare grand xool naa da ngay violé ay duul la ay fen la magi na

fépp a laa ilaha illallah laa ilaha illallah xale yi jege nañ policier yi ñu ñemee nii dafa doy waar xoolal lii xoolal lii wallaay ndax dina am ndax tey couvre-feu dina am bu picc nga defe ne nga defe ne xeer sax nga defe ne xeer di nga yóbbu kees ma nga ma ngay yóbbu kees ba ay waay ay ay ay waay ay waay daam loo laalati te yàlla mi ñu sàkk dellu si ne daal dellu si ne daam del zoomé sa téléphone Médina TV dina leen koy toppale sans